yaa xayra day asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu mbokki téléspectateurs yi dal leen ak jàmm ci xibaar yi ñu jagleel weeru koor gi ci fii ci Touba Mbacké xibaar yi ñu dooree ko ak màggaluk yi bu Mbacké gi nga xam ne amal nañ ko ci juróomi fan ci weeru koor di bés bi nga xam ne ci la gane woon àddina ci atum 1335 ci ginnaaw gàddaa ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci njaareem dëppoo nag 1917 moom Serigne Souhaïbou Mbacké nag nekkoon jëmm joo xam ne jëmm ju sell la jëmm joo xam ne liggéey na fi liggéey bu am solo rawatina ci wàllum xam kookee la ñuy ànd ak Serigne Fallou Galass Sylla mu leeral ñu kan moo doonoon dëgg-dëgg bu Souhaïbou Mbacké. Euh, Serigne bu ngir xamle ko rek dana yomb ndax mook Cheikh Abdoul Ahad ñoo bokk lépp ñu bokk ak Serigne Saliou ba tey ci fànn googu ndax soxna Mariama Jaxate moo ko meññ si soxna Mariama Jaxate doomi sëñ as sa Jaxate la sëñ as sa Jaxate ñëpp miin nañ ko ci mbaakool mu doon nitu yàlla ku màgg koo xam ne sëriñ bi daana ko bàyyi xel lu baree baree bari musta dunde lu weesu aw aw ñaxam musta dunde lu weesu aw ñaxam nee nañ wax nañ ne benn yoon rek la masa lekk loo xam ne du du du du aw ñaxam te booba laax bu muy toggalu rek soxna sam ko doon toggaloo fab tuuti ci sunguf sungufam feddalee ko laax ba ba mu ko lekkee biiram dafa dafa dafa wàccu bi mu wàccoo laaj soxna si ne ko xanaa da nga cee def lu ma la joxutoon mu ne ko waaw mu ne ko loolu la biir bi tàmmut kon kooku mooy nitu yàlla ku sell kooku nag moo meññi soxna Marema Jaxate soxna Marema Jaxate nag eh, ci ay doomam yi gën a ndawe la bokk ndax eh, sëñ Modou Asta eh, dafa dafa soxna si ma àndaloon di soxna Fat si la doomi sëriñ ma paate si la libaas dafa fab ak njabootam jox ko sëñ Touba njabootam gu jigéen gépp sëñ Touba leen yar muy soxna Marema Jaxate soxna Fat Jaxate ak soxna Assu Jaxate ñoom ñëpp Serigne Touba moo leen dëkkoo woon soxna Fat Jaxate mooy yaay Serigne Saaliwu soxna Marema Jaxate di yaayi Serigne Abdou Lahad ak Serigne Souhaïbou Serigne Abdou Lahad Serigne Souhaïbou itam feeñee jamono njaareem njaareem la feeñee jamono ci atum 1915 jàpp 1916 eh, yàlla dogal it Serigne Touba moo ko boole ak eh, Serigne Amsatu Jaxate mi bokk ak yaayam ndey ak baay.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 ki nga xam ne tey jii moo ko fi eh, toogal jiite njaboot gi muy Serigne Cheikh sey doon sàkku ñaan ci moom waaye ki nga xam ne moom moo di soxna mun Muntaxa di kenn ci eh, doomi Serigne bu Mbacké yi màggal na ko ci këram mu ànd koog mboolem taalibe yi waaye it kilifa yu bëree bëri yoo xam ne ñëw nañ teew fa ànd ak moom li nga xam ne moom moo di màggal gi ñëw ziar ko saafonteeg moom waaye ndokkal ko ci bés bi nga xamante ni moom lay màggal muy bésuk euh, euh, bi nga xam ne ci la waajuram woowu gane woon na muy sëriñ Sohaybu Mbàkke moom nag euh, am na kilifa goo xam ne teewoon na fa bokk na ci Serigne Cheikh moom am na kàddu yoo xam ne yëkkati na ko fa mu jëm ci soxna Bally Mountakha ak Serigne Sohaybu Mbàkke ñu ànd teewlu ay kàddoom mu nekkoon Serigne Fallou si la doon ñu leeral ki nga xam ne moom moo di Serigne bu Mbàkke ba léegi ci jëmm jooju la ñuy des sax ci màggalam gi nga xam ne amal nañ ko fii ki nga xam ne moom moo di taalibe yi demoon nañ ci ki nga xam ne moo fi xalifaam tey di Serigne euh, Cheikh Sey daal di koy ziare waaye ziare mboolem njaboot gi bokk na ci ñi nga xam nii amal nañ màggal gi moo di soxna Baali Muntaxa moom ku ne xam na ne euh, doomu euh, Serigne Souhaïbou la moom it mu màggal màggal gi amal ko fi nga xam ne moom moo di ci këram ànd ceek mboolem taalibe yi ak kilifa yu bëree bari yoo xam ne ñëw nañ fa daal di koy sargal ànd ak moom li nga xam ne moo di màggalug euh, waajuram wi di Serigne bu Mbacké ci loole sax dafa am kàddu yoo xam ne tataan nañ ko ci Serigne Cheikh Parcelle ci euh, kàddu yoo xamante ni jëmal na ko ci soxna Bali ak taxawaay yëpp jëmee ci euh, li nga xam ne moom moo di màggalug Serigne bu Mbacké bi ñu ànd teewlu ko. diggante soxna Bali ak murit bu ne kon na mën na caa wax ndax soxna Bali amut ak bëgg amut ak jublu amut dara lu mu bëgg lu may bañ loolu Serigne Mountakha ak yoon wi liggéeyal sëñ Tuubaa maamam kon nag jotaay bii ñu ngi ñëw di barkeelu ci màggal ak ku tedd ki nga xam ne mooy Cheikh Souhaïbou bu Mbacké euh, borom alxuraan Cheikh Souhaïbou bu fokk sëñ Tuubaa ku bëgg taalibe yi ku bari njëriñ koo xam ne ki weer ñu nekk mooy weeram bis bii nga xam ne moom lañ nekk mooy bisam waaye bisam laylu xadar tam mooy bisam ndax ajjumay laylu xadar la wàcc am liggéey xam nga loolu ñëwul ci àdduna laylu euh, weer koor wàcc àdduna wàcc génn àdduna lu xadar Euh, loolu maanaam bu rëy le ci ab julli rek ah, waxuma nag ku am ku am cër ci sëñ Tuubaa kon nag ñun ñu ngi ñu bëgg bu baax ànd ak sama benn xale bu ñu wax sëñ Taali Saadi di mu murit bu baax bu bëgg sëñ Tuubaa boo xam ne daa ñëw rek ci bis bi ngir soxna Bali xamante ak moom siyaar ko ah, barkeelu ci liggéey màggal gi ñu nekk ah xam ne ñun soxna Bali mënuñ ko defal lu ñaanal ko bàyyi ko maamam ah, kenn ku ne ci noonu xam nga soxna Bali xam nga lu mu jëriñ la jëriñ xam nga fu mu jaar ak yow bàyyiwul kenn bàyyiwul rawatina nag njaboot ak sëñ Mountakha ñëpp ñu ngi koy sant di ko ñaanal di ko gërëm. mu nekkoon kàddu yi Serigne Cheikh Parcelles yi nga xam ne yëkkati na ko ci kër Soxna Bali Mountakha ci màggalug Serigne Souhaïbou Mbacké gi. mbokk yi xibaar yi di wéy fii ci Touba Mbacké ci weeru koor gi dañuy dem ba résidence Khadim rasul fi nga xam ne bés bu yàlla sàkk fi la ñuy daje ginnaaw tàkkusaan ci njàng am solo mi nga xam ne waa daara Hizbut-Tarqiyyah ñu ngi ko fi amal kilifa yu bëree bëri di ko teewee bokk na ci kilifa yooyu nga xam ne ñëwoon nañ fi maitre ma Madické ñaa moom ñëw fii ànd ak Serigne Mountakha Mbacké Bachir xasida yooyu teewlu ko mu nekk jotaay boo xam ne rafetlu na ko lool ñi nga xam ne noonu la Serigne Mountakha di dundalee laat weeru koor gi fii ci Touba waaye it jaale na Cheikh Béthio Thioune mi nga xam ne gédd na àddina te lu taxawaay bu am solo bi nga xam ne Cheikh Mamadou Mountakha Mbacké taxaw na ci ñu ànd teewlu maître Madické Niang ci kàddu yi nga xam ne taxal nañ ko ci moom. ni man taalibe gi laay dund moom ma am mbégte wu tey bi ma tege sama tànk si dëkk bi rek ziar sëriñ bi ñu ànd dem julli ji juma ma dellu soir ñëw fekk njàng mi njàng mi nag képp koo xam ni. gëm yàlla mi ngi si sa xol as soo ñëwee fii daal bég moo fi nekk jàng xasaay sëñ Touba moo fi nekk te lii ndamu sëriñ Touba la addina bi yëpp tey waxtu wi su jotee képp koo xam ni yëg nga mbir mi te nga sénégalais wala ngay doon jullit sa xel day dem si xool njàng mi te loolu nag day delloo nit ñi si yàlla te nag amul amul woor bu gën sell lii kon sëñ Mountakha amuñu fayam yàlla naka yàgg taxawu lool ndax lii ndamu lislaam la lii wane na ni ñun jaruñu jéggaani kenn ba nu amee Serigne tubaa am nañu koo xam ni war nañ ko mën tiitaroo si àddina bi loolu la sëñ Mountakha di wane am sëriñ tubaa wax nañ ko tiitaroo si àddina bi yëpp rawatina nag ay bindam. def jii mu defal Cheikh Béthio képp kuy taalibe war nga ko sant ndax kat ñun suñu bëgg-bëgg yëpp mooy mujj fii. tey bi mu wàccee liggéey joxe na ndigal ñu indi ko fi kon ñi ngi koy jaal sunu mbokku taalibe yëpp te di xam ni moom sëñ saaliyu mi mu àndoon wanu ko gannaaw ndax li ko yàlla defal avion spécial lañ ko jël indi ko Sénégal ñëw si àjjuma ji jëkk si weer wi ñu ñëw jébbal ko sëñ tubaa kon wax dëgg yàlla sunu xel war na dal si moom ñu ngi jaale ñëpp te di wax nag ñëpp leen na am solo mooy ñu jaayante fu nu toll. xam ne ay taalibe lañu war doon dañu war jox sunu lépp sëñ Touba dañu war jox sunu lépp sëñ Touba ndax sëñ Touba moo nu yoreel sunu lépp kon nañ ko jox sunu lépp. mu nekkoon kàddu yi maître Madické Niang fii ci résidence Khadimou Rassoul mu ñëwoon fii ci biir weeru koor gi. mbokk yi ci xibaar yi ba léegi ñuy waajal laylatul xadr 1440 ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi may sallam soxna Maymunatu Mbàkke bintu Cheikhul Xadim daan ko taxawee fii ci Touba. njabootam gi nag di waajal lu ni mel ba tax ñu door conférence yi nga xam ne ñu koy amal conférence yooyu ñu door ko niki aljuma ji fii ci Touba Mbacké thème bi nga xam ne moom lañu njëkk a développé ki nga xam ne moom moo ko doon euh, càmbar moo di Serigne Moustapha Diatara di soxna Maymunatu Mbacké ak euh, Laylatul Xadr mu nekk thème bu am solo boo xam ne am na as lëf loo xam ne jukkal nañ leen ko ci ñu ko. jëmmi Laylatul xam ne moom aw turam rek turu turu turu ñu ko tuddee rek. wane na dimension am wane na moom euh, ni mu toll ndax yàllaa ko ko tuddee du kenn ku moo ko tuddee laylatul qadr guddi gu am daraja guddi gu am solo di guddi goo xam ne suñu borom bari na lum ci dogal ci biir guddi googu xam ne bari na loo xam ne doomu aadama euh, ci mbiram yëpp ci guddi googu bu dikkee suñu borom subhanahu wa ci la koy dogal muy guddi goo xam ne lii sababu euh, yàlla jox ko xeetu seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo di euh, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa gisoon ne xeetam bi seen fan dafa guddut ni xeet yi nga xam ne ñoo ko jiitu woon xeet yi ko jiitu woon dañ daan am fan yu gudd lool ñii di am juróomi téeméeri at ñii di am juróom benn téeméeri at ñi di am sax ba ay junni at waaye mu gis ne xeetam wi moom euh, seenu fan taxu leen gudd te fan wu gudd dafa am solo lool ndax ci nga mën a liggéeyalee yàlla lu bari ci nga mën a defee lu bari loo xam ne dalay amal njariñ amal njariñ diine ji amal njariñ xeet wi mu xemme moon nag loolu ci aw xeetam sunu borom subhaanahu wa jox ko laylatul qadr ne ko loolu yi ngay xam ne mi ngi ci biir laylatul qadr daal di koy wax ne ko laylatul qadri xayrun min alfi shahr guddi la goo xam ne am na wàccuwaayu junniy weer junniy weer boo ko seetee juróom-ñaar fukki at yu tegal la. mu nekkoon euh, Serigne Moustapha Diatara mi nga xam ne moo doon animé conférence bi ñu doon amal ci kër soxna Maymunatu Mbacke bintu Cheikhul Khadim ci HLM. ci waajal euh, laylatul xadr gi mu a doon jeudi 30 mai 2019 mbokk yi dañuy tàggoog yéen ci xibaar yi tey jii ak euh, kuréel daara Hizbut Tarqiyyah bu tëngee ci njàng am solo mi nga xam ne njàng nañ ko fii ci résidence Khadim Rasoul ñoom nag euh, ñu njàng fi xasida yu am solo ci teewaayu Cheikh Mouhamadoul Mountakha Mbacké Bachir ñu ànd ak yéen ci xasida yooyu tàggoog yéen ci xibaar yi fii nii ci Touba Mbacké sant leen gërëm leen dig leen daje ëllëg ci yeneen xibaar yoo xam ne day bàyyeekoo fii ci Touba Mbacké ci weeru koor gi wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu ñu ànd teewlu kuréel gi man shakka fi kawni ibni abdillahi muhammadin nuurul waraa falaayi man shakka fi kawni ibni أبيض لو المصطفى a ma